jëlee ko ci ñi nga xamante ne ñoo ŋànk réew mi autorité administrative yi autorité religieuse yi waaye kenn koo xam ne képp koo xamante ne rek bon volonté nga te nekk ci biir réew mi rek kàddu am nga ci wàll. macha allah ñu jël nuyoo ak di ko teg ci loxol mbooleem koo xamante ne rek bi plus particulièrement tamit ñi nga xamante ne ñooy internet nga xamante ne ñooy topp chaîne bu mag bi nga xamante ne mooy Salam Vision mbégte la am tey waaye dalal tey suñu xarit suñu wëlëre suñu mbokkum taalibe ñu gën ko xam ci El Hadj ñu bàyyi ko mu nuyoog askan wi ñu daal di dellusiwaat El Hadj ñu leen di la ziar waaye di la dalal ci biir ñu ngi leen i nuyoo. Mm-hmm. Mm-hmm. ne turam santam. Mm-hmm. di leen gërëm yéen ñëpp ci dalal bi ngeen ma dalal. ci émission boo xam ne nii mooy. kàddu askan wi kàddu askan wi. rafetlu naa ko. Talla Sylla doon ko xam ne nii nit ku baax yàgg nañu xamante. Mhm. bëre bu liggéeykaay boo xam ne nii carrément ñun ñëpp fa la nekkoon. dafa mhm. daan suñu doole. kon bi mu invité mhm. leen di bu baax di leen gërëm. macha ci nuyoo bu am solo boobu macha allah kaddu askan bi nag tey fa mu doxantu mooy fan Notto Diobass la fa xewi duñ ko nettali waaye dañuy bàyyi ki ko dund ak ñi koy dund ñu nettali ñu suñu bopp El bu ñu la tey ban kaddu mooy kaddu bi nga xam ne mooy ñaxtu bi nga xamante ni waa waa Notto Diobass tey jii ñu ngi koy ñaxtu. waaw ñaxtu yu yow doon na loo xam ne carrément man wax dëkk ñu ko wax pour Diobass. Hmm. su nekk dañoo toog hmm. hmm. xam ne ni carrément ñu ngi yëngu xam ne ni carrément tey képp xam ne askan bi rek. ñun dañ ciy taxaw. parce que Notto bi ma dëkk maa ngi dëkk bu ñuy wax pour Diobass. pour Diobass mais pour Diobass bi ma dëkk am na courant am na juma am na tout ça mais dañu gis ne ni jumaa bi pare na. Mm-hmm. morgue bi pare na. Mm-hmm. mais bi dama gis ne ni carrément tey amul kilim tey. Mm-hmm. bu nit génne àdduna tey dañuy lijjante glace. pour man ko wax dañ ci woon. te dee dee heure yi nii. peut être mën nañu war glace mu am war glace du am. ba léegi na woon nag ma waxtaan ak samay waajur bu góor. ma ne ko lii moom dinaa ci yëpp jéego boo xam ne carrément sama doole jotul ginnaaw. mais am na ñoo na ma wax loo xam ne ni carrément tey ñaa ci wax su sama ak di ci yaakaar jullit yi yëpp nag ngir morgue bi ñu mën fa def kilim boo xam ne ni tey hmm. nit bu génnati àdduna tey xam nga hmm. waaw loolu de moo tax a jóg macha allah mu mel sa biir wax waaye léegi rek ci jotaay bi am ñoo ma moom dégg naa la ma wax waaye sa waajur bu góor tamit doon notable sa gox bi tam dégg naa li ma wax mais tey jii dëkk ba ana maire bi fa nekk tam waaw parce que bi tey parce que boo xoolee turu maire rek moo fa am parce que maire boo xam ne ni doo ko gis. Mm-hmm. doo ko woo fi mu jël la. Mm-hmm. kon kooku turu maire moo fa am. Mm-hmm. waaw kon yaakaar naa loolu bu ma ci waxtaanee sama waajur yi dama toog ma ne xaaral ma woo imam parce que comme mbirum jumaa la. dëkk àdduna dafa doy waar. boo ma leeral la ni carrément tey jii avant ma dama woo imam. waxtaan ci moom. Mm-hmm. moom vidéo yi nekk sama téléphone moom ko envoyé. Mm-hmm. ak sama papa. Mm-hmm. parce turu maire bi nag xam nga la rek. parce que maire boo xam ne ni carrément soxla askan bi tey mënu cee taxaw tey. kon loolu turu maire la. kon turu maire la. waaw parce que jumaa boobu toll noonu tey ñu doon koo xam ne ni ay ndaw ñoo jóg pour man a jaayante. pour def fa kilim tey te maire bi na fa tey loolu def na loo xam ne ni carrément tey lu ñu métti la mhm. lu ñu métti la parce que maire bu ñu la fàllee da am li tax ñu fàll la mhm. pour nga taxaw soxla askan moo tax ñu fàll la mais nekkul maire boo xam ne da ñëw tëdd Dakar bi mhm. say askan xamul lu loolu rafetluwuñ ko rafetluwuñ ko bu campagne jotee dañuy wàcc ci nit yi di waxtaan loo xam ne ni carrément pour ñu fàll mu ñu xasee fàllu amatuñu yitte ci nit yi loolu rafetluñ ko mm-hmm. waaw loolu daal moo nekkoon loo xam ne ni carrément moom aajo soxla ma ci dërëm nag l'essentiel mm-hmm. morgue bi nañ ko jaay nag mm-hmm. ba mu mel ni mu war a mel am kilim am tout ça ba nit bu génn di àdduna tey kilim bi nañuy taal soxla wuñ dërëm boo xam ne day dem suñu poos loolu taxu jóg waaw ay ndaw lañu dañuy daal suñu doole ñuy ñaan yàlla yàlla may gudd fan ak kàttan ak fekke loolu boo xoolee raax sax defuñ ko man foofu la doon bëgg ñëw parce que maa gis ci image bi léegi nii ñu may woon boo xamante ne fi mu toll jumaa joo xam liggéey nañ ko ba mu pare morgue boo fi ne nga xam ne daanaka mënta ñàkk ndax buñ nee dund rek faaw faatu dana ci am kon faatu bu amee war nañ mën a bàyyi xel si dem nekki moom buy dund dina waajal boppam ba am dëkk waayam bu mu dëkk ba bu guddee jotee mu mën a dem dëkku fa suturlu fa kon war na mën a waajal boppam yi tamit ngi bu faatooy tamit mu ko suturaale boppam mais ñu gis ne ñan moo yoroon liggéeyu morgue bu morgue bi ak jumaa ji ak bi ba mu yegg si fi mu yegg si tey. waaw parce que jumaa ji boo xoolee tey ndaw dëkk yi tey ñoo ko fa defoon. nee na day li la kon am loo xam ne ni carrément tey ñëpp bu ñu feneen tey. Hmm. du ñu dem ci kenn wala du ñu dem ci benn média bi sàkku ndimbal kon ñu ko commencé woon ñoom ñoo koy yëgal yi mais morgue bi nag moo doon loo xam ne ni carrément tey man mm-hmm. mm-hmm. nga ko wër am man ko wër a am yaa ngi dégg li ma te kenn ku ne jombul fenn morgue mm-hmm. loo xam ne ni carrément ci borom bi parce que moo jar ñaan amul leneen fi àdduna day jàpp adduna day jeex mënoon naa def comme samay morom ma toog tey samay loxo mm-hmm. mais kenn xamul mais nag comme dama gis naa vendredi bi mm-hmm. que ñun ñi ah, départ nañ fii Dakar fajar bi mm-hmm. que galaat mënta téye nit mënta téye nit mënta téye nit loolu daal moo nekkoon samay tànk mu ne itam maa ngi dégg imam mi ngi koy wax ak sa waajur bu góor ne daanaka démb ñetti nit wàcc ndoo nañ fa liggéey daanaka am dañoo amoon jafe-jafe dëgg-dëgg sax pour mën leen a téye ba fi mu dañoo mujj a patam pataxee pour denc din jëfandikoo noonu lay demee saa su ne nag nit bu génnee àdduna tey jii nii parce que temps bi ñu ci war a tey xam nga pour ñu dañ defar ko tey du mat mhm. parce que dañ koy profité balaa moo yàq foofu noonu mhm. temps boobu noonu du am foofu noonu te noonu la fa demee mhm. waaw morgue bi boo xoolee image bi ni carrément muy sama téléphone raaxuñ ko dër sax defuñ ko suuf si moo nekk noonu waaw après yam envoyé naa ko gars yi bu ñu ko seetaan nañ xam ne ni carrément lii raaxuñ ko defuñ ko dara waaw macha allah léegi tey jii ku leen bëgg dimbali fan la waroon a jaar pour dimbali leen am na numéro téléphone imam bi wala bu sa papa wala boo xamante ne mën ngeen ci jot yéen ndaw ñi nga xam ne yéen a liggéey liggéey boobu ba mu àjj ba ba ñu mën leen a taxawu jàppale leen si. am na numéro téléphone bu ñu leen mën a jotee. waaw waaw numéro yooyu yëpp yor nañ ko sama numéro papa yor naa ko numéro imam bi yor naa ko numéro koo xam ne moo si si imam bi yor naa ko ki ma envoyé photo vidéo itam yor naa numéro mm-hmm. parce que loolu moo taxoon avant maa yegg si fii yow man xaaral ma woo sama papa jox la ko mm-hmm. ngir nga wax ak moom bala maa yegg si fii parce que lépp lu may def day doon loo xam ne ni carrément lu leer moom ma tax a jóg dëgg la aduna kenn xamul mm-hmm. yaa ngi dégg li ma la kon lépp koy liggéey liggéeyal sa jaayante ngir nga am sa borom moo gën aduna day jeex day jeex kon l'essentiel lépp looy def rek da nga am wéy boo xam ne ni carrément tey fu ñu ko léegi rek mu doon wéy bu am wéy bu rafet lay doon. waaw leneen taxu ñoo jóg mais morgue bi daal naa kii morgue bi daal na am kilim moo ñu tax a jóg. dëgg la buñ la sa den sa kàddu bu mujj. ban message ngay lancé askan bi wala bonne volonté yi wala autorité administrative yi nga xam ne ñoo ngànk réew mi tey pour ñu taxawu leen tey. waaw wala message bi ma leen di lancé rek mooy ñoo xam ne ni carrément tey ñu gëstu noto Jobaas surtout maire bu hmm. bu fa nekk hmm. rawatina président de la république bu Macky Sall. Mm-hmm. moom laa ci jiital. Mm-hmm. maa ngi sàkku ndimbal bépp jullit boo xam ne carrément war nga ci mën a jàpp tey ngir morgu tey ñu raako def foofu kilim boo xam ne ni carrément tey. dina mucc ayib tey hmm. képp ku fa ñëw dina xam ne ni morgue bi doon na morgue boo xam ne ni carrément nit bu fa nekk tey dinañ mën a jël temps defar ko waajal ko comme ni ñu ko a hmm. hmm. moo nekkoon sama dina gërëm yow taal sa caméraman yëpp aw ma seen fay yàlla mi moom fay yàlla fay moom it jóge ba foofee nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy dëkk bi mu wax léegi pour Jobaas la dëkk waaye nooto Jobaas bi nga xamante ne fa la lépp bawoo nga xam ne mooy jumaa bu mag ba fa nekk morgue ba fa def amul climatiseur bu tax fi mu ne ñu mën faa denc néew waxtu sax waxuma la ak ay waxtu te néew léeg-léeg dana am ñuy xaar ay mbokk ndax gannaaw ci àll bi a génn ci àll bi ndax 15 kilomètres de de Thiès la léeg dana fa faatu ay mbokkam nekk Ndakaaru nekk feneen ñuy xaar ñu yegg si ngir ko defar kon diir boobu muy toog foofu war am ne dana ko mën a téye ba mu intact ba nga xamante ni bu bu bu bàyyi mbokkam ñooy ñu mën ko jël defar ko.